mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen duy nuyu baax a baax di leen ziyaara ci seen émission bi ñu naan kàggu ngeen ci ànd ak sëriñ Mbàkke Soxna Lo Kebe borom baax ci biir ngeen ci fekk seen pëj bi ñu naan bis ne tey ngeen ci ànd ak Abo Bousso imam Yali ñaar fi fan ak juróom ci weeru koor bis sa tey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yable woon ngir ñu euh, mabbi euh, xërëm boobu ñuy wax euh, uzza uzza moom it bokk ci xërëm yi nga xam ni alquran tudd na ko loola mi ngi nekkoon ñaar fi fan ak juróom ci weeru koor atum juróom-ñett ci gàddaay gi yemoog bi sallallahu alayhi wa sallam ubbe màkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi yónni woon Seydina ibn Walid ci uzza ngir mu mabbi ko ca fu ñuy wax bayti naql xërëm boobu xureeshin ak waa banu kinaana niki ki banu mudar ñoom ñoo ko daan jaamu di ko magal sayyidina khalid mi ko mabbu bi juroomi fan dese ci wéru koor lool moy ñaar fan ak juroom ci atom koor atum juroom ñett ci gaday gi bi sa tay ñaar fan ak juroom ci wéru koor ci lañu rey benn sha'ira manam ap talifkat bu jigen mi ngi tuddon asama wa bintu marwan mom mu bok ci ngir banu umayya ibnu zayd ibnu adi ibnu amir mom sha'ira bobu daan way di ngañ yunus sallallahu alaihi wasallam ak l'islam ni ki julit ni ginaaw bi nga xamé sallallahu alaihi wasallam mi ngi wacc ba badar ku ñu wax umar ibnu adi ne sallallahu alaihi sallam ma ngi nësër bu ñu ci waté badar su mo deewu dina ray ki nga xam ni euh, mom moy asamaau mi nga ci xaré badar mom mom umar ibnu addi mu dem wax yonent sallallahu alaihi wasallam bay ba gudi mu dem euh, kërëm dal di koy ray loolu la ñaar fan ak juróom la woon ci wër koor atum 623 juddu ci yàlla isa ñaar fukk fan ak ci wër koor bi sa tay la abbasini tak seen premier drapeau loolee ñu def ko muy euh, drapeau bu ñuul remplacer ko drapeau weex bi nga xam mom la amaw yu reuy amé won loolu mi ngi nekk ci atum atum 128 ci gàddaay gi loolee ma nga xewe woon tamit ca xuraasaan ci loxoy abi muslim al xuraasaan yi mi nga xam ne moom moo amee woon fipp ga foofe ca xuraasaan ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor bis na tey la ñu gën a taral mbugal ak duma ni ki eh, tox toxol yi ñu doon def eh, imaam ahmad ibnu xanbal loolee mi ngi nekkoon ci atum 221 eh, ginnaaw boo xam ne moom mii dañu koy dóor ay dóor yu metti fekk mi ngi woor te tam bu dogg te du am lenn lu mu dogee moom ahmad ibnu xanbal xam ne moo ko wóotu di muctadi bi mu ñëwee moom moo gën a taral yëf yi lépp ngir xët-xët bi doxoon seen diggante loolee bis tey la woon ñaar fan ak juróom ci weeru koor ñaar fan ak juróom ci weeru koor bis tey la ki ñuy wax tahril bak dugg Bagdad loolee ñaar fan ak juróom la woon ci weeru koor atum 447 yem ak fukk fan ak juróom ñaar ci weeru décembre atum 1055 ci la tahril bak nekk sët ci Saljuux dal di dugg euh, Bagdad wax na ñiit crée bi fi duggee mi ngi fa euh, fekk alqaim bi amrillah niki noonu ay mag ak i góor yu bokkoon ci état bi moom moom mi mu daal di amal ànd nag ak jàmmoo niki noonu wane it ak àndam ci état bu abbasiya ñaar fukk ak juróom ci weeru koor bi sa tey la xare ba bu ñu wax Aynu Jàllo dal di xew muy diggante tataar yi ak ma Malik yi loolee ñaar fukk fan ak juróom la woon ci weeru koor atum 658 euh, mu nekkoon xew-xew bu siiw boo xam ne amoon na jeexital bu rëy a rëy ci ci taarixul islaam ndax bariwaayu armée tataar yi ci réewum jullit ñi loolee ma nga xewoon ca Palestine ci jamonoy buur bu ñuy wax Papres Diasne Kir ak euh, général bu siiw boobu ñuy wax Muzfir loolee bi sa tey la woon fan ak juróom ci weeru koor atum 658 bis tey ñaar fan ak juróom ci weeru koor atum ci lañu roy xalifa na tey ñaar fan bu Russie bi beneen yoon beneen yoon ci njiital yi nga xam ne ni moom mooy Ahmad Makhtar Bassa mu nekkoon doon ngañay lu rëy te am solo lool ci benn xare bu ñuy wax baax na liir baax na liir lu toll ci fanweeri junni soldat ak ñeent loolu mooy armée bi nga xam ne moom mooy armée jullit nii waaye lu jëm ci armée prusse yi mi ngi toll ci 740 maanaam juróom-ñaari téeméeri junni ak ñeent fukk teewul ñi nga xam ne ñoom ñooy russe yi ñoom ñoo perte ci xare bi ndax rayal nañu leen lu toll ci fukki junni soldaar mbokk yi ñu leen sant bu baax baax leen gërëm rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bind ak di ñu envoyé ay vocal di rafetlu li nga xam ne mooy pëj bi ñuy wax bis na tey jërë ngeen jëf yéen ñi safoo bis na tey yal na leen yàlla fay